poroxaan dëkk bu sell bu fees dell ak taarix soxna Mariama Bousso la mi nga xam ne mooy waajuru cheikhul xadim fii lañ ko denc ginnaaw bi mu génnee àddina ci atum 1833. pàkk bu sell bi ñu taxaw nag mooy poroxaan yaakaar naa ne mm, xamle ko jamono ji ñu toll jëratu ko lool ndax àddina bépp xam nañu fan mooy poroxaan ndax li ci am solo rek mooy jëmm ju tedd ji fi tëdd mooy soxna Mariama Bousso nga xam ne liggéeyal yàlla moo ko fi woon mu àndoon ak kilifaam ñëw fi sëñ Mbacke Mor Maam seli Anta Sali dafi liggéeyal yàlla ba des fi euh, diggante bu gàtt la fi nekk waaye liggéeyam bu rëy ci digganteem ak borom liggéeyam bu sell bu ko yàlla nangul moo tax tey ji Porokhane di dund ba léegi tur wi jéggi na àddina bépp kone xam na poroxaan mbaa ñi ëpp ci àddina xam nañu poroxaan te li ko kéku li ko waral rek mooy soxna jaara mu fi tëdd tey dëkk boo xam ne nag diirub lim fi tëdd euh, di liggéey euh, Cheikhul Khadim mi nga xam ne mooy doomam bàyyi woon na barab bi xel bàyyi soxna si xel ku ko ku mu gis nga jóge ci gox yi dana la laaj dara ci soxna si laaj la dara ci barab bi kon yitteel yitteel na ko digle woon itam ne nañ fiy daje te di fi ñaan maanaam nañ fiy ñëw te di fi ñaan suñ boroom dana fiy nangu ñaan àddina di dox di dox di dox ba ni fi Cheikh Mouhamadul Bachir ñëwee ci ndigalam ngir réhabiliter dëkk bi fekkoon na am na ay taalube boppam yoo xam ne daana leen jox ndigal ci ñu di fi ñëw sëñ ba Awa njaay Mbuuma la dë Kër Maba la dëkk sëñ Babacar Diabou sëñ Bay Mbuuma sëñ Moussa Paté Dramé ñoom ñëpp taarix feeñal na ne daanañ fi ñëw ci ndigalul sëriñ bi di nemmiku si soxna si ak barab bi di fi daje ay waxtu yoo xam ne dañuy def ay ñaan ba ni sëriñ Bassirou jote ndigal ci sëñ Touba mu baa charatan ci ñëw réhabilité carrément Porokhane Koundala ci gàttal daal taarix bu gudd la. waaye bu ñu ko tënkee noonu danañ xam ne poroxaan soxna jaaram moo fi tëdd diggante bi yàggut waaye jëfum ju rëy ci digganteem ak boromam moo tax dëkk bi di dund ba léegi Cheikh Mouhamadul Bachir yor kilifteefu dëkk bi. Serigne Touba moo joxoon ndigal Serigne basiiru Mbacke ngir mu ñëw fii ci poroxaan taxaw barabu soxna si yéenay Serigne basiiru nag moo doonoon taxawu dëkk bi nga xam ne moo di poroxaan ba lépp loo xam ne war na fee am ci jumtuwaay ak bërëb yu ñuy yàlla. mu amal ko fi yéene googu nag moom la taawam ba wéyale di sëriñ Moustapha Bassirou ba taxawal fi jumaa ji nga xam ne moo njëkkoon am fii ci Poroxaan Cheikh Amadou bi mu ñëwee réhabilité Poroxaan dundalaat ko Poroxaan réhabilité wu mu am yéene def ko muy dëkk taawam Cheikh Mouhamadul mustafa ab taawam da ko cee wutu xam yéene sëñ Bassirou ci dundalaat dëkk bi mu daal di taxaw ba dëkk bi doonub dëkk li dëkk war a am lépp sëñ Moustapha futtiku ba mu am mu samp juma sampin wu yéeme ndax yi boppam yi nga xam ne ñoo nekkoon ci dëkk bi di liggéey donga yi ñoo tabax jumaa ji mën naa ne ñaq donga yi itam maanaam li donga yi liggéey su traite taxawee seen liggéey boobu lay jël di ko tabbal ci jumaa ji boole kook donga yi ci seen bopp taxawu liggéey bi ba liggéeyu jumaa ju njëkk ji àgg jamono ji jumaa jooju di àgg mu jumaay sëñ Moustapha ji jumaa ju dëppook jamonoom la ndax booba jumaa ji melokaanu jumaa ji raar na ci tund wi tund wi ñu nekk booba foofu la jamono toll waaye ni ma ko junjee léegi Cheikh Mamadou Bachir bi nga xamee ne ñëw na Poroxaan ci ndigalul sëñ Touba ba gis barab bu soxna si bi mu fanaanee ci barab bi bi mu xëyee def na barab bi fas naa yéene mu mel ne tuubaa yéene jooju nag bu fekkee dafa am ay tànk di dox doxug yéene ji musta taxaw kon day dox tàmbalee sëñ Moustapha di dox di dox di dox ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yéene ji gën a fés googu moo indi jumaa ji ci sunu gannaaw tey. bi fi Cheikh Moustapha Bassirou bàyyeekoo wujji suñu borom Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moo doon xalifa waa kër Serigne Bassirou. di ko ñaanalaat mu yàgg fi loolu te ànd ak wér wéyale liggéey bi nga xam ne moom la fi magam ju tedd ja bàyyi woon taxawaat nag ngir yeesalaat jumaa ji nga xam ne moo nekk fii ci poroxaan defar ko ba mën a méngoog jamono ca la ko door ànd kook mboolem njabootug sëriñ Basiiru Mbàkke gi ak taalibe yi am yéene def ko jumaa ju mucc ayib Cheikh Mouhamadoul Mountakha cig nekkam la jumaa ji taxawe cig nekkam la jumaa ji taxawe Euh, defe naa fàttaliku nañ bi muy tegaat xeer wi fii bi mu koy tegaat ngir yëkkatiku booba ci xilaafaam la mooy xilaaf ak Cheikh Mahamadul Bachir booba nekkugul ci jal bi maanaam wutoogul sëñ Tuubaa ci jal bi booba defe naa sëñ Sidi Mokhtar mooy mooy mooy sëñ Sidi moo fi moo fi nekk moo nekk ci ci ci xilaafa gi ah léegi nag euh, sëñ Muntaxa niñ ko xamee boo gisee jumaa ji mosu koo nangoo yëgle mosu koo yëgle mooy euh, liggéeyu boppam la bu mu gis ne moom moo ko war a liggéey maanaam yéene jum bëgg feeñal ci li sëñ Basiru bàyyi ci dëkk bi ak yéene ci sëñ Basiru am ci dëkk bi ci dëkk bi dund mel na Touba mu gis ne kon barab yi tax Poroxaan mel na Touba barab yooyu yëpp war na ca taxaw mu daal di taxaw ci teg jumaa ji bi nag mu defe ko defin woo xam ne defin woo am solo la mooy yëglewu ko ndax moom yàlla dafa def sëñ Muntaxa ku ko xam xam ni muy liggéey da nga xam ne du jaawale liggéeyu sëñ Touba bi ci boppam ak liggéeyu boppam loolu defe naa ne mën nañ cee gën a sori ndax baat bi mu jëfandikoo bi muy teg xeeru jumaa ji mooy jumaa ji am njeexaat la ci moom njeexaat njeexaat nag ñi dégg wolof danañ xam ne boroom tool bu bay ba ba mbayam wàcc mu dajale gerteem yóbbu ba farmanko farmango kooku kay dem ca toolam di ca jeexaat ay doomi gerte yu mën a jariñoo boroom tool bi du ca am soxla kon njeexaat la tudd li tax mu tudd njeexaat nag mooy ni mu ni mu demee woon moom sëñ Muntaxa ci jamono jooju ndax sëñ Sidi Moxtaar a ngi fi di sëñ Touba te liggéeyu sëriñ Touba bi mooy liggéey bu mag bi dëgg sëñ Muntaxa gis ne moom du du du dafay mel ne ku yanu bu yanoo it dootu mën a bokk day mën a yanu rek moo tax ci jamono jooju li ko war ci liggéeyu Masalik lépp mi ngi koy def. addiya yi mu daan joxe wàññee wàññeekuut soroor yi ñuy liggéey ci Touba soññee ba mu cay soññee ak addiya jëm daan joxe taxawut te booy seetlu daf koo yàggee ndax bi mu bi mu liggéeyee daarul minan ba mu sotti Cheikh Mamadou Lamine Baara ne fi bi mu koy jébbali caabi yi image yaa ngi ku ne dégg na li mu wax daf ko ne ginnaaw man bi ma koy songu jàppewuma ma woon ne nii lay tëdde suñ saali wu nekk na fi waxuma ko ci dara ginnaaw sëñ Moustapha ndax booba foogoo foogu moon ne fii la jëm nga ne fi ñemewu ma la cee wax dara te ñàkk a ñemee wax dara gi mooy bàyyi gi bàyyi xel liggéeyu sëñ Tuubaa bi mu demee nee na ba taxaw taxawaayu jumaa nag mu xam fi mu jëm mu ne na ci sàkk pexe pexe bi mooy addiya ja mu dajale woon muy dund ak sa sëriñ Basiru ci kaw suuf mu dajale ko ci koppar ne tuddewu ko addiya njotug ndigal la ko tudde njotug ndigal njot ndax ginnaaw moom waxu ceeg sëriñ Saalihu waxu ceeg Cheikh Mouhamadou Lamine Bara te moom ci ndigal lay dox mu ne njotum ndigal la ko tudde jël addiya ji jox ko te loolu yomb naa jàngale sëñ Fall ndax boo xoolee ci xilaafa gi addiya yi ñu koy indil ay daayira di ko indi di ko ko jox addiya yi boppam ji nga xam ne sax danga ko koy jox nga xam ne ci moom la jëm soo ko préciser lu ne ko ah te préciser préciser bi nga ko koy defal nag da nga ciy da nga ciy sax di ko won ne lii ci yow la jëm. dalay ree rek ndax soo ko ko bàyyee ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi la koy def ndax gisatul lu moom loo xam ne yëfi boppam la mu moomal ko boppam téyel ko boppam gisatu ko dafa li mu gis mooy lépp loo xam ne lu dugg loxoom la ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi la jëm loolu sax danaa ci nettali anecdote bu xaw a saf xorom muy kenn ci safóoram yi nelaw Basiru Jéey yàlla na suñ borom yokk ay leeram Euh, Basiru Jeey mas na ko ne wax dëgg yàlla Mbàkke euh, xilaaf ak sëñ Basiru ga nga doonoon xalifa sëñ Basiru moo a dàqal gi nga doon tey <laughs> ndax li mu si jublu mooy booba moom xëy na lu mu ko laaj mën na ko ko jox ndax gis na ne li mu yor yëfuma mën na koo séddoog moom waaye bi mu demee ba nekk ci xilaaf ak sëñ gi nag dafa àgg fi mu ne ci ab ab ab boo ko ko joxee te muy addiyee sëñ Tuubaa balaa am jàmm dana xam socc boobu fan lañ ko ko tegal loolu defe naa ñi nekka ak moom min nañ lool te foog naa ne. xëy na ñi ko ñi ñi ñi ñi ñi ko dànd jegewuñ ko xamuñu lu xew ñoom lañuy ñoom la ñuy leeral loolu waaye ñi ko jege xam nañ ne ñu ngi dund ak moom loo xam ne kii fi nekk lépp loo ko jox mu dugg loxoom Sëñ Tuubaa la koy delloo looloo tax jumaa ji nag bi mu ko xalaatee ah, waa këram nag am na am na am na njabootu boppam muy njabootu Cheikh Mouhamadul Bachir biñ gisee ne kii yëkkati na ko rek te xaaru ci kenn teel naa wax experts yi ci liggéey ne leen. awma compte sëñ Touba mooy sama compte baat boobu nag bi ko bi ko njaboot gi déggee baat boobu yëngal na njaboot gi nag ñu gis na ñoom ñoo war a doon ay mbaggam bu yanu dara njaboot gi nekk bitim réew taalibe yi daayira mi noonul baaxil xadim ak ñu demee noonu ñoo ñu wax dëgg yàlla taxaw ci taxawaay bu wóor a wóor a muy njaboot sëñ Bassirou gi mu ko seqal ak soppay boppam taalube yi masalan ndax sëñ Muntaxa yàlla dafa def loolu ci moom mooy ñëpp am ci moom cofeel ñëpp am ci moom bëgg bu bu yëkkatee dara bu ci bu ci bu ci wowut kenn itam ñëpp danañ danañ ko fekk si ngir melokaan wi ko yàlla ni ko yàlla bindee mooy liggéeyal sëñ Tuubaa rek la xam daraam négul daray sëñ Tuubaa lu mu yor jox na ko sëñ Tuubaa moo tax bu yëkkatee dara euh, faw ñu fekk ko ci moo tax njeexaat mi li ñu tuddee am njeexaat mujj nag njeexaat mi Euh, ni mu doon jeexaatee nuru lu gaaw bon ndax am njeexaat la ko tudde te effectivement noonu la deme jumaa ji noppi ginnaaw yeesal gi mu fas ko yéene ubbi aljuma dëppook ñaar fukki fan ak benn ci weeru août atum 2020 sëriñ bi nag wootewu ko ndax jamono moo ko laajul ndax mbas mi nekk ci réew mi nga xam ni sëriñ bi am na ci taxawaay bu kawee lool. maanaam damay wax ne sëriñ Mountakha aspect yëpp foo ko ci xool rek gis ko mu fees ko dell su fekkee. Euh, nitug diine la boo xoolee ci wàllug diine gi da nga koy gis mu fees dell bu dee ab citoyen la citoyenneté bi da koy gis ci moom ba mu fees dell bu fekkee ak nite la ak xam àddina da nga koy gis ci moom mu mat sëkk loolu moo tax bi mbas mi amee te mu xam li am ndax xam na li am te moo ko waxal boppam discours korite ga la yaakaar naa su ma juumut dégg nga mu ne corona lu ko waay wax tooñ ndaw la lu ñu yebal loolu la wax bu mission jeexee jeex na xam nga foofu moom maandu na ci corona ki mu doon ak li ko tax a jóg sëñ Mountakha maandu nag waaye ci nite rek ci nite rek bi mu xamee ne réalité la réew mi moom ñëpp a ko seq te yëg-yëg bi mu am mooy ku wopp mooy ki la war a faj. donte mënut a si ba ci sa biir kër nguur gi fi nekk itam moom yëg-yëg bi mu am moom moom mooy ki war a dimbali waa nguur waaye waa nguur waruñu ko dimbali moom yëg-yëg boobu la am dafa daal di génne alal teg ko sëñ Fallou yow mi ànd sëñ bi waxtu ne xam nga ne sëñ bi acte bu mu posé rek am na lu tax ndax du defantu du jël alal di ko teg fu mu ko wër te teg du ko sànni ndax xam na li muy joxe lu mu doon kon xam ne ne lii nekk na ah bi mu defee loolu ba noppi li mu ci teg mooy ñi nga xam ne ñoom la seqal àddina mu nangul leen yi ñu wax simplicité boobu warees na koo jànge ci moom muy simplicité bu cent boo xam ne ku ne war nga koo jàng mooy wàcc na ba fekk sénégalais lambda bi mi mi bi bi bi ñu takkloo mask sëñ Mountakha fekk si na ko du takk di takk masque bu baax dégg li yaa ngi dégg li ma wax gel bi ñuy laal fekk si na leen di ko laal kon nangu na ne am na mu dëj ci dox doxin wu rafet wu ñu yëg ak ak wu ñu yëgut mooy xam naa ne fi ci nekk ci ci ci fi ci nekk ci di ñaan jortu naa ne nekkandoowu faak ñu bari ci di ñaan lii jóge fi li mooy boobu ba léegi ku ko xam ak ku ko xamut noppaluwul ñaan yi muy ñaanlu mm, ñu di ko def ci collectif ñëpp di ko def muy ndigal li mu joxe bokkut ak ñaani boppam yi muy defal boppam su weetee ngir lii jóg fi ndax euh, mooy ki nga xam ne bokk na ci li ne ci moom mooy réew mi ñu fi bokkal di ko di ko dund ak bitim réew ak ña àddina sax laay wax bu sañoon dara du dal ci seen kaw. waaye bi mu gisee ne lu yàlla def la muy jullit bu nangu dogal dafa nangu dogalub sunu borom bàyyee yàlla akub dogalam du ko ca fekk mukk ci àddina waaye nag li ko yàlla digal ci dogal bi sañ na ko muy ñaan su fekkee dogal bi day dogal bu metti ñaan rek la ca mën a def muy ñaan waaye xam na dogal bi am na te dogal bi suñu borom képp mooy ki ko dogal moom dong mooy ki ci man dara itam lii ñuy def lépp ay pexe la ca man gi dara man gi ci yàlla man dara fes na ndax bu fekkente ne bii réew yi ci biti la te bari lool doole amatuñ pexe seen pexe jeex na kii fi dugg ba indi fitna jooju ci àddina bépp bi mu egsee ci noonu mi ngi dox doxin wu yeex li war a jànge foofu mooy li tax mu egsi ci noonu di dox doxin wu yeex ba faagaagalut te fam fam jaar fépp da na faagaagal war nañ cee amum njàng mooy nun ndekkete yàlla bàyyi nanu xel li feek teggiwuñ suñ tànk te fi ñu ko teg suñ digganteeg suñ borom gën koo doyloo gën koo wóolu lépp lu dikk suñ borom mi nga xam ne moo noot lépp mën naa dox suñ digganteeg loola. Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir di kilifa gu fonk lool diine lislaam te jëfe ko maandu te bëgg lool Cheikhul Khadim. moo tax sëñ Mountakha bëgg gi bëgg gi diine loolu moom neexut a nat damay wax ne jëm jëmm ji bu la boo même boo ko xamut nga xam ne danga koy dégg mu romb la di dox rek. nga nga nga am benn yëg-yëg ci diine bu mu tuuti tuuti lu mu tuuti tuuti bu la rombee di dem boo ko xoolee xam ni kii jox na yàlla léppam ndax dafay refléter ci xar kanam bi nga di ko gis pas pasam bi diggante ma sëñ Tuubaa loolu jàmm ndott na ci man nat sëñ Tuubaa mi mu ko seqal rek moo mën a xam sëñ Muntaxaa mii fi mu toll ci moom loolu moom ni koo gis muy dox ak ku mën a doon njort rek la ci am waaye mënut a fexe fexe fexe ba mën a natt dégg dëgg pas-pasam ci digganteem ak sëñ bi dafa jox yàlla léppam ba mu jeex jox sëñ Tuubaa léppam moo tax sax damay wax ne ñaare moom discours yi muy jàllale di naqaree dégg ndax fi mu toll ci xaala bi mu toll ci lay ci lay ci lay waxee li muy wax léegi nag su fekkente ne bi yow amuloo dawq boobu mu mosoo mosoo fi mu fi mu mose wala xet gi sax xeeñ la li muy wax boo deful ndànk boo boo boo ca bëggee nekk di ko lañ bat dana la indil fitna ndax dafa am fu mu nekk. te li muy wax lépp da ko koo xam xam maanaam da koo mos xam ko xamin wu rafet woo xam ne yow mi koy déglu xamu ko ginnaaw xamu ko nag faaw mu di jaaxal ngay laaj sa xel kii li mu wax lu mu doon nangam li ci gën mooy bàyyi ko fi mu nekk ndax fa mu nekk fekk ko fa dafay jafe. Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir jàmm yàlla rek moo ko ñor ak jëf ju baax. boole xilaaf ak sëriñ Basiir Mbàkke ak gog yoonu murit gépp lenn lu ci ne nag xam na nam ci doxee ndax ku maandu la liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la def ci bërëb bu sell bi di poroxaan mboolem kilifa yeeg taalibe yi ameel ko njukkal ndax ku ne amoon na yéene taxawal fi jumaa ju mucc ayib lool dend ak bërëb bu soxna Mariama bu mu sell mi